mbokk internet yu Dakar net ginnaaw bu ñu leen nuyoo xibaar ba daanu na xibaar ba mooy lan ki nga xamante ni moom mooy Guy Marius ak ki nga xamante ni moom mooy Assane Diouf ak ki nga xamante ni moom mooy Clédor Sène yoon bàyyi na leen am nañ liberté provisoire jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi ci yoon bi di ñibbi seeni biir kër waaye ci li ngeen xam mooy ki nga xamante ni moom mooy avocat ñi leen doon jàppal tànk ñoom Euh, dañu demandé woon benn liberté provisoire jëmale si ñoom juge euh, Mamadou Seck euh, moom moo leen ko accordé alors démb ci boppam ñi nga xamante ni moom mooy 19 personnes yi nga xamante ni dañ doon jàkkaarloog juge Mamadou Seck ñu leen doon toppee association de malfaiteurs ak yeneen i mbir. ndax audio bi nga xamante ni tamit moom lañ doon toppee ñoom Clédor jamono ji ñuy wax ak yéen may nañ leen liberté provisoire waaye ki nga xamante ni moom mooy Biram sulay ak Abbas Fall ñoom ak 19 personnes yi ñu doon jugé démb. ñoom ay bés yi di ñëw. Euh, parquet bi dinañ ci ñëw parquet bi dina ñëw ndax dañ leen di bàyyi ñu ñibbi euh, seeni kër wala déet waaye lu luñ ci mënti am dinañ ko topp ba xam wànneen fu muy mujjee gënam yarawati na ñeneen ñi nga xamante ni yoon daf leen téye ba leen di abonné seen site d'information bi di Dakar Net dara du la rëcc ci réew